mbokkee xarit internet yi comme ni leen ko waxee boobu ba léegi ñu ngi dox di wër ci dëkk bi di saafonte ak sénégalais yi nga xamante tey dañu war a wone seen i mbégte ci ballon d'or bi nga xamante ne doomi réew mi di Sadio Mané jël na ko le fils de Bambali tey dañ fekk benn góor gi nga xam ne mu ngi teg baraad ak kaasam toog ah jàpp njaamuram sëriñ bi maa ngi lay maa ngi lay nuyu góor gi nanga def. ça va bien merci maa ngi lay fay. góor gi yow da ngay seetaan football. waaw damay faral di seetaan football. xam nga Aliou Cissé. waaw bien xam naa Aliou Cissé Aliou Cissé actuellement moom mooy entraîneur euh, équipe nationale bu Sénégal tey euh, ñu am benn doomi réew mi nga xamante ne nii muy Sadio Mané euh, di footballeur bu mag ci Afrique ak ci réew mi ñëpp seede ko tey mu jël ballon d'or loolu père nan nga ko gisee ak sa jàngat. waaw waaw ni ma ko gisee mooy di ci di ko rafetlu kontaan si di xam ne Sénégal yàgg na jël ndam ay nit ñu fi yàgg defi jaloore moom lañ fi am. kon nag wax dëgg yàlla du ñu def lu mooy bëggee ko di ko ñaanal mu nekk ndamal Sénégal jig Sénégal ba ni mu ko amee ballon door bi yàlla def ñu amee noonu coupe du monde ak coupe d'Afrique mu ñëw Sénégal loolu laay souhaité di ñaan julit yëpp ñu ñaan yàlla defal ñu xiiwal boobu mu nekk suñu ndam ñun ñëpp way euh, tey mu ngi waaj a ñëw Sénégal indi coupe bi présenté ko sénégalais yëpp saafoon teg sénégalais yi parce que doomi réew mi la est-ce que bu boobaa père da nga sol sa daal di ñëw supporter ñëw seetaan si teeru ko en tant que sénégalais. waaw bu soobee yàlla bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko jàmm incha allah dinaa waaj ak samay mobilisation en tant que jardinier jardinier yëpp danañ dem teeru ji ko ak ay bouquet fleur incha allah waaw loolu daal lañ fas yéene waaw ñun ñëpp jardinier yëpp danañ ko teeru teeru ko teral ko waaw. Euh, ban message ngay joxe ci naataangoom yi nga xam ne ñu ngi football euh, ci action sociale yi muy def euh, di tabax juma di tabax jàkk di tabax hôpital di tabax école pour xaw lay jàng yow loolu na ko gisee. waaw loolu di ko rafetlu parce que nit amul lu mooy réewam te j'espère bien que boo demee ba am lu la yàlla may ñëw wone ko sa réew def ko fi muy doon sa empreinte ci réew mi dafa am solo waaw loolu lu baax la képp ku koy def rek yàlla la ci yàlla jàppale parce que loolu rek ay ndam lépp loo mën a def dem def ko ca tubaab yi amul sens fi lañ xamee say papa fii xam say yaay xam say maam say rak kon nag def fi loo xam ne ku ñëw xam ne lii diw moo ko fi defoon di doomu sénégalais c'est très important ngeen gën cee góorgóorlu képp kuy def rek na def te yàlla tax waaw ok c'est très important comme di ko góor gi waxee léegi dañuy continuer waat di wéy di dox biir dëkk bi saafanteeg sénégalais yi nga xam ne dañu kontaan dañu war a wane seen i mbégte ak seen contentement ñun fu nekk danañ fa dox ruq-ruqaat daal di jël mag jël xale jël maire jël ku nekk wane ne affaire bi affaire de Sénégal la Sadio Mané doomi réew mi la li mu def dafa rafet ñëpp jóg wane supporter ko donc ñu ngi waraat ci keneen góor gi maa ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal jërëjëf. di leen ci bàyyi xel di leen bàyyi ci anciens joueurs yi lii wolof yi naan mag mat naa bàyyi cim réew bu leen di gaaw a écraser anciens joueurs yi ci équipe bi léeg-léeg saa yu ngeen amee match ab ancien bu desee palmarès dee leen ko ci boole même bu dee benn trente minutes sax bu di ko ci jouer parce que dina motiver joueurs yi dina leen permettre ñu gën a fubal ndax dañuy xool ni kii kat sagam moom mag di mën a def lii ba tey ñu ndaw yi nu ñuy def dee leen bàyyi xel mag ñi anciens joueurs yi dee leen di boole ci équipe bi léeg-léeg même bu dee trente la ñuy fubal ci match yi sax leen ko ci boole. mais anciens joueurs yi mën nañu citer comme kan ak kan. parce que ku mel ni El Hadj Diouf borom yi feeb ba tey da ngeen koo màggatloo mais des na. per hmm? ku mel ni El Hadj Diouf ba tey des nay feem mën na bokk ci équipe def benn geste bu ndaw rek ñi mën a dugal dugal mais El Hadj Diouf borom yi feem la dafa jar a ci équipe bi màggatagul ba tax ngeen di ko écraser. waaw donc bàyyi leen ko xel bu baax. muy fubal war na di fubal même bu dee benn trente minutes sax ñu jox ko ci mu ñam. ndax bu boobaa dañ naan ki mag la mag la mag la ba mu nax leen dugal leen George Weah def na ko dernière cartouche am mu dugal bit yóbbu gars yi Coupe d'Afrique kon nag Sénégal aussi da leen bàyyi xel anciens yi merci beaucoup. mu nekk dernier moom sénégalais dañu bàyyi anciens yi man li ma jaaxal El Hadj Diouf bi nga xam ne bàyyi na football mais supporteru El Hadj Diouf la quand même merci jërëjëf ñu ngi continué waat demaat feneen seeti keneen ci wasaare merci beaucoup. sénégalais africain buñ toogee ba Sadio Mané jël ballon d'or bi ballon d'or ñun kontaan lañ ciy am. ak fierté parce que gëj nañ ko dégg ci El Hadj Diouf waaw comme Sadio Mané nag c'est un Sénégalais comme nu waaw amuñu si leneen lu dul mbégte ak fierté waaw loolu laal xam naa ko si te bég naa ci lool aussi waaw te ñaan naa yàlla aussi muy jël ballon d'or waaw bi nga xam ne moom la ñëpp di xëccoo parce que toll na foo xam ne ñoom Cristiano Ronaldo ak ñoom Messi euh, fuñ fi ñu leen di séntu moom romb na fa waaw te ñaan naa yàlla aussi mu changé club ñëw ci Real waaw waaw parce que Real mooy sama équipe waaw. ci gouvernement Sénégal maanaam mu gën a jàppale ndaw ñi parce que ndaw ñi problème bu ñu am mooy espace bu ñuy fooye parce que ñun ñi yëpp jaar nañ ci mais. waaw ak ay centre gën a gën a gën a góorgóorlu ci centre yi bu ñu gën a bari nii daal parce que gis naa ne centre yi dañu xaw a saturé. waaw. secteur de développement la sport parce que boo xoolee football tey ci àdduna bi fépp moom moo gën a dox moom moo gën a dox te aussi day sukkale am réew. waaw man loolu laa ci xalaat quoi. léegi hmm. hmm. parce que am boo xoolee réew yi ñu wër ñoom footballeur yi ñoo ko defar. waaw tey boo xoolee ñoom Messi ñoom Cristiano am na lu bari lu ñuy def seen réew kon maanaam Afrique toll na foo xam ne footballeurs yi war nañ ci mun a def lu lu bari loo xam ne sa gouvernement bi du ko def waaw parce que gëmoon naa ne buñ toogoon ak gouvernement bi gën ko jàppale ci yooyu day gën a yomb si ñun waaw parce que suñu njëriñ la ñun ñëpp man daal noonu laa gisee quoi waaw man bu ñëwee moom incha allah man dinaa dem wasu sama ak waaw dinaa dem aéroport waaw mbokk yi ñun waa wasaare ñoo déplacé woon ñëw fii fekk fi benn Casamançaise boo xam ne ni Astou Diédhiou la tudd mu mu wax ñu tuuti mbégte bi mu am envers maane Mané seen doomu réew mi nga xamante ne nii jël na Ballon d'Or nekk foofu ci Bambal yi moom nag mun nañ ci wax dara Astou ñu ngi lay nuyu di la sant tey loo ñu mun a wax ci Sadio maane mën nga ko wax nag ci Joola njom di kalaange no ka suumay njom de saafu miw tu ko ba dinga tu Sadio Mané a fereele ji kontaani kontaani tambi ma jinya fan kankane jiju kojuk fan tini momo jiju keno juk tampon fan mon sume sa fuken tuji kane tu fuken jiboma jibombom tate orkese mo sumoli meno tu bayto manki e fuken tate nye tuji kane fuken mati kontane ati sadio mane ma ngalum enda e ballon d'or yen manje yo jifimente mati pa ngar yo bare jata emite rambe ramben nanga ngar yo midi kane mba ngare nen sammenge emite fande wula wuj afamma baji woy fangeto to ñalɗi kati bambali tuye sukey to wuli koko ɗika duwo ma famma wuje ɗi e nagayla balon ay poob merci beaucoup yaay booy Astou Diedhiou ñu comme ne la nga waxee sànq gis ngeen ko noonu Astou Diedhiou lay wuyoo moom nag xam nga Casamance yees la bëgg Sadio Mané loolu xam ngeen doomi Casamance da ngay ci sa mbokk Casamance donc noonu ngeen ko gisee noonu dégg ko li wax mënuma tekki nag mais bon ñi ko mën a dégg xam naa ne war nañ ko mën a tekki merci beaucoup ñu ngi leen jox rendez beneen yoon wasaare la woon jërë ngeen jëf merci